diaspora gi def Darmanko moo ko dugal ndax Babacar diaspora deful dara de ba nekkee ci vidéo bi man la woon TikTok ak boos Babacar diaspora beneen téléphone la doon woote dégg nga ma beneen téléphone avant muy woote appel bi girif xam na ne baaba Babacar diaspora mooy woote de rek mu jëkkantu ñu nañu mooy woote de amul fu mu dëkk moo gën da ko daa xaaral ma jël ko mën lay wutloo kër ne ko takk def ko haut-parleur xoolal loolu man tamit ma téye di enregistré parce que duulkat girif day wax di wet noonu koy gisee biir bi noonu oval noonu mel ne saako di paas dafa duul ba duul yi dajaloo gonfale ci biir bi moo war gir bi noonu boo gisee buy dox day mel ne xarum tabaski parce que duul yi la léegi mu def haut-parleur Babacar Diaspora ñuy wax waxu néeg xam nga Babacar Diaspora lan moo ko war a yóbbu Atlanta waaw parce que ba mu joteeg moo dañ koo conseil ne ko maanaam chancel état chancel état lañ ko wax léegi xelam nekkoon ci Atlanta mu ne dinaa woo girif darman ko ndax moo moo dëkk Atlanta mu woo girif di ko wax loolu pour li jënd ay situation girif naan amul fu mu dëkk amul kër yaa ngi dégg wax ko ci appel di ñun ñi sax la ko wax léegi Babacar Diagne ko daa mënta am kër sax Amérique parce que moom visa la yor da dafa ñëwoon ci ay mission mënta liggéey Amérique kon Babacar Diaspora deful dara maanaam damaa bëgg mu leer ne wax ji lépp lépp lépp girif darmanko la mooy duulkat bi mooy fenkat bi mooy naafeq bi te nag day wax di wedd de moo tax ma koy enregistré bu duulee rek ma ne ko girif mu ma ne ko taj déglul yaa fi duuloon lii mu mer xam nga kuy duul nga koy tegal ay audio day noppi bu duulee léegi man xamal laa lay ñaan say duule man du ma faral girif du ma faral kenn mais baalal baalal ko rek baalal ko kan la de amul baalal waa léegi baalal ko parce que tànsa ngi ne moo ko dàq duul te mu ngi ne yii girif amul morom de maanaam <coughs> ah, xam nga ñoom bokkuñu maanaam girif duulu pet lay duul maanaam professionnel la ci duul benn bis xam nga nan la def ma wax la lu gën a garaw live boo xam ne 700 personnes ñooy seetaan muy yàqu deru moo géet naan moo géet amul këyit mun ta ñibbi Sénégal gaa yaa ni nii ndeke moom mi ngi ci live bi te yëgu ko ndax xam xam ne duulkat la mais dafa demaat ci directu TikTok mu naan moo moo ko baax la bu ma ko yéenee lu bot fekk ne gaa yaa ngi commenté ne ko xanaa yow yëgoone woon Adama direct la la defoon fee bu may rek xoolal loolu moo ko gën a garaaw direct laa ko def direct appel muy wax rek te yëgul ne gaa yaa waaye léegi kaay ma wax la xam nga nit du ñàkk défaut mhm. doomu aadama kenn matul waaw ñun ñëpp xol lañu yore yàlla moo yorul xol dëgg la yàlla mooy kenn moom kese moo ñu sàkk ñun ay jaam kese lañ dëgg la kenn matul aha léegi da koy baalal girif daanañu noonu rek gis nga jabar ji mer na ba nekkoon yow ku ñàkk jom nga nii audio jabar jaa ngi nii xaaral ma tegal la ko ndax xaaral ma dolli audio jabar ji parce que une minute 34 moo jot ci live bi day dagg mais dama koy commencé waat yow pareegu ma si yow. <laughs> jabar ji sa daa xam ne dul kat nga mu naan ko ñàkk nga fay la lii ku ko sa jabar wax war ngaa xaru déglu leen da koo effacé woon de ma fexe ba lijjanti audio bi da koo dindi woon esto yi la ko defoon gaaw effacé ko ma ne ko xaaral ma ñëw ngay dof doflu professionnel ngay waxal déglul jabar ji. yow yaay que yow doo yow doo kilifa si boppam ji. ndeysaan. yaay def lii que yow doo kilifa yow doo kilifa si boppam te ji sax xam ne ne dul la jabar ji da maanaam jabar ji maanaam ndeysaan méritowul jëkkër ji mel nii mais loo ci xam loo ci mën. mais mais naturel rek xam doomu aadama. doomu aadama aadamoo. Ah. doomu aadama matul doomu aadama matul. ndeysaan du kilifa la ko jabar ji wax doo kilifa. <laughs> moo lii dafa ñaaw barki